asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu njiitu kër gi muy Bougane di ko ñaanal jàmm ak tawféex ñu ngi nuyu personel bi aussi du nuyu Sénégal yëpp ñu ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye si Pikine ak Soxna Massila la du nuyu Soxna Gagne Gueye maa ngi nuyu directeur u centre horticulture bu Cambérène fi ñuy tourné ni émission bi di ko sargal ñu ngi nuyu le colonel Moussa Fall ak le commissaire Demba Sarr di profité di ko félicité aussi si victoire bi nga xam ne Lions yi am nañ ko si Coupe d'Afrique bi moom aussi mu sonn si lool bokk si dirigeant yi si ñuy accompagner équipe bi ñu ngi koy félicité bu baax a baax moom commissaire Demba ñu ngi nuyu Cheikh Thiaw ak soxnaam Aminata Gueye di nuyu Asfal bu Alamine sa yëmbal di transporteur maa ngi nuyu Mobal Ndiaye di sapeur à fii si Amon 5 ak njabootam di nuyu waa mooy yëpp ñu ngi nuy waa Guédiawaye di dellu di félicité waat Ahmed Aïdara si ndam loolu lu rëy loolu mu am tey daal euh, dañu ñëw si wàllu cholestérol cholestérol nag muy loo xamante ni benn diw bu mboq la buy circuler si yaramu doomu aadama te baax loolu di defe dégâts aussi boo déggee ñu ne baax na nag c'est parce que nit mënta dund sans cholestérol ndax bari na yu am si nit muy fabrication nouvelle cellules yi muy hormones yi ak yu bëree bari moom cholestérol bi dafay dugg seen fa leen togg seen fabrication kon am na njariñ excès bi moo baaxul bu ëppee baxul motax boy régime lo nit bu ne ko bayel lu nit complètement da nga naan ko wañil ndax ta ñak cholestérol nak li tax mu dangereux da dafay tafo si sidit yi ñi wax artère xam nga dret yi moom li koy jële si xol bi diko yob ci si cër yi organe yi moy artère rawat na l'artère aorte soy jël nak graisse yu bari day dem ba benn moment diw bu mbokk bobu nga xam ne fay koy cholestérol fay tafo si biir sidit yi su si safoon nag day mel ni raakol boo jël ciment rek tey ko si biir dafay wàññi yaatuwaayu raakol bi muy diamètre bi soo nee deret yi day am jafe-jafe pour circuler loolu mën naa yokk sa tension mën na di arrêt cardiaque moo tax mu muy indi crise cardiaque lu gaaw a gaaw a gaaw kon ñu bàyyi xel bu baax que ni dañ si war def ndànk cholestérol nag dafa am ñeenti type muy am la cholestérol alimentaire mooy bi na si lekk gi boo xalee nen cholestérol boobu am na si deux cent soixante quinze benn nen am na si deux cent soixante milligrammes te yow ñu wax ni li nga soxla si cholestérol si journée bi warul dépasser trois cent milligrammes kon boo lekkee ñaari nen si bis bi rek ëpp na kon loolu mat na bàyyi xel te léeg-léeg nga gis njóoba day lekk xëy dekkee ñeenti nen kon ñu bàyyi xel que ni loolu lu mat a surveiller la. am li ñuy wax le cholestérol sanguin mooy boo demee hôpital bi docteur bi natt moo ñu tuddee le cholestérol sanguin warut a dépasser deux cent milligrammes. loolu baax na xam mu am nag yeneen ñaar yu jugee si cholestérol sanguin boobu muy cholestérol HDL ak LDL. HDL bi moom la cholestérol de haute densité mooy bu baax bi moom bu ëppee wàññiwul dara am LDL mooy seexam moom bu ëppee baaxul warul dépasser cent cinquante milligrammes kon loolu nit ko war na ko xam moo tax bu ngeen di yooyu di xool fu mu toll. ñu ne cholestérol bu ëppee nan ngay def ba wàññi ko lu ma leen ni mukk bàyyi la yëpp yu nit lay ndax li nga war a def mooy bu dee da nga nekk nitu yaram mooy wàññi sa poids ndax boo amee yaram graisse lu graisse dajalu sa yaram day day day yomb wàññi consommation sucre ndax soo wàññee sa sucre rek yaa ngi wàññi sa yaram dèjà wàññi yu nii nii doo bàyyi ba da ngay wàññi lu mel ni yàpp bari graisse beurre fromage ci ga dege da koy wàññi bu baax a baax a baax di jël légume ak fruit lim ak C ak citron mandarine pamplemousse orange Voyez jël lu di jël ñoom navet carotte ak poivron yooyu boo ko lay jël dana wàññi jafe-jafe yooyu. aussi baax na boo lay jël dafay wàññi boobu. kanja baax na koy wàññi kon yooyu ay lay jël même persi nga jël takku ko def ko un litre d'eau ndox mu tàng bàyyi ba mu sedd nga segg di ko jël par genn wàll kaas boo ndékkee boo año bari gaaw na si laaj bi ngeen di gis nii dara gën a ko gaaw si wàcce ko sol soo xëyee rek dagatel ñaar doomu laaj nga naan comme comprimé da koy wàcce jinjeer boo ko amee jinjeer muy le gingembre def ko infusion di ko di ko naan da wàcce ko sol kon liy wàcce ko sol bari na ñu xam ko bu baax a baax a baax mais bu dee si fruits yi nag surtout les agrumes bi si gën mooy pamplemousse pamplemousse moom gaaw na trop pour wàccee Lidi, Lidi, Lidi di lii di cholestérol ñu bàyyi xel bu Pommes a baax a pomme aussi boo ko jël benn pomme vert bala ngay tëdd nga jël ko dee wàcce cholestérol kon na xam yi ñu a part yu ni café café d'après études yi café bu consommation ñi ëpp lu ñuy café ñoom la seen cholestérol di gaaw a yi kon am na relation bu café am ak cholestérol boobu kon cholestérol na nga wàññi wàññi wàññi café étude finlandaise ko moo surtout nag kafe bi ñu baxal bu dee kafe da nga koy koy lool ko sax baxaloo ko amul problème mais bi ñu baxal moom dafay yéegal cholestérol ñu bàyyi si xel cigarette aussi da ko yéegal ñu bàyyi si xel ndax cigarette boo koy doy tox lu bëri day ba di rigidité des vaisseaux day tax si di dootul souple dootul nooyi ba man di sànni sànni dret ji kon day tax de di tàkk kon loolu jaax baax na baax na xam ñu wàññi ko bu baax baax a baax question ni ñu tey ñaar la kii nee na méthode bëñ moo ko sonal bëñ bañ nag li ñu si joxe bari na xorom poole bi moom dara gënu ko soo jëlee xorom poole rek benn nga nga baxal ko si gannaaw kaas ndox bàyyi ba mu ba sa gémmiñ ñime ko nga koy galaxante bu yàggee dafay rey bëñ bi soo amee sungufu fuuf aussi fuuf nga wut si tuut rek tooyal ko limon saañ ko si bëñ bi daf koy daral soo amee njooy njooyu guy aussi dugal ko si bëñ bëñ bëñ bi da koy bu la bettee guddi gi nag te amoo dara te am xorom bëñ bi bënn jëlee doon joxorom nga dugal ko si biir bën bën boobu dina saf mais bu seddee rek moom da ngay nelaw moo moom moo métti bay ànd arrêté kon loolu ay tegtal yu mën a jëfandikoo wala temps na ngay seet dentiste ndax bëñ moom alaakul kuli àllin dentiste ngay mujje ndax moom bu bënnee da ngay dem ñu plombé ko nga am jaam ndax loo jël mu calmé ko bu subaa mu yënguwaat da ngay dem ñu plombé ko bu ba yàqoo ñu dindi ko nga am jaam ndax bëñ neexu la ab liggéey daal nee na moom dafay mel daal suuf moo ne si bët yi waaw loolu ay socc da koy def mais xobu daxaar si gën a gaaw daxaar tibbal sa loxo ba mu fees nga baxal ko di ko sëlmoo di si xool si kàttanu yàlla di nga am jàmm ñun tàggu fii leen jox naa des beneen jotaay jërëjëf. convoquer les élèves en maintes reprises parce que tout simplement comme ils ne font pas leur cours dans l'enceinte de l'établissement souvent on enregistré des retards des absences des fois même non justifiées mais comme vous êtes dans l'enceinte de l'école maintenant ça va nous permettre d'avoir une œil sur vous. Ça va nous permettre de vous contrôler et ça va nous permettre aussi de vous mettre dans d'excellentes conditions et ça va nous permettre aussi d'être à l'aise, de vous donner des, des cours convenablement. Donc, encore une fois, nous, nous remercions euh, le docteur Samandiaï qui a un début sans fin. Euh, tout à l'heure, dans le discours de Sadegao, il a dit que pourquoi pas faire une photo à l'effigie de docteur Samandiaï et je suis tout à fait d'accord parce que c'est l'ancien président de la République Abdou Diouf qui disait que coup de lu Nous devons le la et docteur nous le le Voire war le la defal encore une fois je vais passer la parole la à madame la madame la principale mesdames messieurs les professeurs et surveillants chers élèves par cette présente je tenais à vous remercier au nom du gouvernement scolaire et l'ensemble des élèves pour ce service rendu à notre établissement qui est le Collège Nyarkaden. Votre geste à savoir la réhabilitation du grand bâtiment et la mise en place de tables bancs suffisant pour le bon déroulement des enseignements apprentissages. Depuis le début de l'année, nous étions confrontés à un problème de salle de classe où certaines étaient logées à l'élémentaire, ce qui a permis à nos camarades de venir chaque jour se plaindre des conditions de travail qui étaient vraiment difficiles. Cette aide ô combien importante a donc été bénéfique pour nous. Et je tenais à travers le gouvernement scolaire, l'ensemble des élèves et des professeurs de remercier vivement le docteur et professeur émérité Samba Ndiaye, qui mérite applaudissements. Et... Je vous prie, mesdames et messieurs, d'inscrire ou de poster la photo du docteur sur une des murs de ce bâtiment qui restera jamais gravée dans nos mémoires. bon fonctionnement des apprentissages, des enseignements apprentissages, mais surtout pour l'amélioration des conditions de travail Un grand monsieur qui aime ce qu'il fait, vous le savez mieux que moi, vous les élèves. Un monsieur très assidu, ponctuel, il est toujours là, compétent dans ce qu'il fait.